bismillah allahu akbar allahu akbar allahu akbar waaw dina xam ne man maa ko takk man man maa ko takkoon moom takkut ma loolu dina ko xam waaw du fekkee ne lii la bugg a doxalee man maa ko yónnee guru moom yónnee wut ma guru nañ dem yow nga dimbale ma dimbale ma xaaral yow dinaa la wooyaat sax nañ dem nga dimbale ma ma paas bagage soxna si fase fase naa ko bu gisee guru nañ bu gisee guru na ji bu gisee guru na yëy man ma dama fànn si maa ko takk moom waaye moom takkul ma maa ko takk maa def si moom ñeneen takk naa ko dina na bërim moo tax mu maa nii xaw ma lu mu def moom takkul ma maa ko takk dégg nga moom takkul ma maa ko takk fa njaalo fa njaalo ma lu mu def fa def man dinaa dem liggéey xendi saalu bi si suba ba jot mm. wàcc ni ñëw ci kër gi fekk dara wala ndogu amalu ma ndogu togg dara ci kër maa ngi nii ba bugg a dee ndogu jot nag gisuma lu ma lekk man réew ma de réew ma nañ nga dimbali ma ma faag bagage am ni léegi fase naa ko fase naa ko ayàq tey de bu gisee bu na yey bu gisee bu na yey faade yuuxu dekk ndóori dëkk wala lu may def yow nga ni sa jabar fa dem togg ndogu loolu tax nga ñëw fi mel ni gaande rëcc man taxaanuma dama ko jox dépense bu mat set du ma ne ci kër gi nag di dangi dangi guddee bëccëg suba ngoon di liggéey wàcc ñëw fekkuma lu ma lekk ci kër gi weeri koor yàlla bi dinaa or ba ngoon jot euh, du ma am lu ma lekk ah dama sonn di dem di jënd ay ma xam na la ci boo xam nga lekk ku bëgg la or loo miin xama or xam nga ne day amul loo miin xama or loo or bi waxtu gi di fokk sa dënn gi di yuuxu ba sa dënn gi jot dégg nga xamal ma la dégg nga dimbale doomu dégg sa cër yëpp a woor sa xol sa fa war a woor xam nga lu ma laa wax lan yow du soxna si fu mu dem. fa dem liggéey. Hmm. war naa liggéey te too too too toogu taay. maa ngi ne si ne bi eh, lekk lekk ñaata fan ma koo lekk xoor ba ngoon di lekk lekk juróom benn fan. yow boo amee boo sa boo amee change sa soxna si di dóor waar comme yow te la jàppale fii nga di jàpp fii doo sant yàlla. non tere na koo toog yow kenn na koo toog déglu ma islam fa wax ne fa nga war a toggal sa jëkkër ma ne loolu sama islam wax fa nga war a toggal sa jëkkër islam nag waxul ne nga takk sa jabar def ko jaam eh, eh, eh. islam fa sa jabar sa nawle la <coughs> dégg te sa jabar bu la yàlla dimbalee sa jabar ñëw beneen fa lay jàppale ngeen ay liggéey yéen ñaar boo jàppee bii boor mu jàpp ba boor war ngaa sant yàlla yow du yàlla fi ne woon euh, soxna si bu du moom kon lambay ñaaw waxuloo ma ne yow bàjj si biir néeg bi moo koy def yow fayam néeg rek a la war. ah waaye lu ñoo lekk si biir kër moo koy def moo dafay ku gi. ndax di nga xëccoo ndogu mi ngay wax. ah jërëjëf waaw waaye foo war a tamit. foo war a togg ba pare def ci lal bi ba mbaa. déglu ma wax la déglu ma nga loo war laga dem si néeg bi toogandoo ko bu fekkee bu wàccee fekk toogandoo ko yow kañ nga dikk ci réew mi la ñoo wax bu dee fa nga am jàqab américain di la fóotloo man man dafi ñàkk si man dafi ñàkk fayda yooyu bokkuma si si man maa def si moom ñaari trente man maa bu doon dëkk ba sa jabar fa ngay suba yóot ko dépense ne ko demal eh, nduggi maa ñoo toggal ma. Ah, bu boobaa boo dikkoon wàcc a am nga si droit. waaye yow fa ngay jom liggéey ñëw fekk lekk tegu si kaw taabul bi nga lekk bi sa kollu gën a daan da. xamuloo fu mbayee lekk juróomi xamuloo fu mbayee ko du mooy dem marché di teg di di bu liggéey doon dina la ko mën a jox yow santal yàlla sa jabar tappalewut fenun njaalawut mu ngee daan dooleem de ñàkk pour mun laa dundal dundal gune yi yow lii kat bu ko ñeneen dégg. lii bu ko bu ko bu ko sa jabar dégg de bu ko. ñeneen ah, dégg de lu tax léegi laa jógee wa woo naa ko si suba ba tey maa ko woo jotuma ko. ma ne liggéeykaay fay téléphone ne liggéeykaay fii xam nga ne yow yaa ma ne woon liggéeykaay ñaata yoon laa la fi yow jotuma la da ngaa ne liggéeykaay du ñoo wuyu téléphone yow xam nga ko xam nga lan la nit fa ngay xam sa bopp wolof yi nag xam sa bopp eh, ni ci jaamu yàlla la bopp la bokk dégg nga ngóor ii boo dee suma xarit dégg nga lu ma lay wax demal nga dem toog gi ndogu boo mënta togg ndogu nga dem jëndi loo xam ne bu dikkee di ngeen si mën a ndogu yoo xam nga ne bu nekkutoon liggéeyi na yoo xam nga ne bu liggéeyutoon musuloo wàcc fekkuloo mu toggal yoo xam nga ko xam nga nag ban seytaane moo laa ruu ndax xiifa weeri koor gi mu la ndax naaj bi fa tàng tey. Ah, bu fekkee doole di. waaw boo xii boo xiifee doole nag nga ànd ak sa sago. ah déedéet yow kat dina la si nii waaw dem toog yi. <laughs> yow toog fan. yow fan nga doon naan sax. man man nga dem jàpp julli boo jullee ba pare nag toggal bu ñëwee. yow yow li koor yi fala man yow nga ne suma kenn xanaa nga fàttali ne maa la xamee. déglu yow nga ne suma kenn naan wala xanaa gisoo ma ne kaa jëppante bi nga naan wax. xam nga loolu waaw mu mu ñor toggal déedéet yow mënuloo julli léegi. am sa doole tàngoor gi nga àndal. am nga la war defam. demal toggali soxla bu dul loolu sa fajar du neex de. yow xam nga fu may waxee demal. lagal ci biir waaw xaaral ma dugg ci biir ci biir. waaw dugal ci biir ci biir ma jéem a dugg waay. waaw dugal waaw defal loolu. wax na dëgg ah kay ah man faa xaw di man faa mënul sax. waay ah la la la xam ne dinañ ko seetal xaaral waaw xaaral ma ko dégg nga laaxam na ko dégg nga ay waay kii foofu di kii mu ngi nii xaw ma lu ma waroon a lifin sax ah bismillah allahu akbar allahu akbar allahu akbar